cinq minutes nee na waaw bi ci des mooy defe naa maa ngi ci conclusion bi euh, conscientiser xale yi conscientiser xale yi xale yi ci li ñu seen Cheikh jàngal maanaam nit nee na l'homme c'est le corps avec son besoin d'aliments ses besoins d'aliments nutritifs c'est l'esprit avec sa soif de découverte c'est l'âme avec son inclination au sacré ñett yii nit ki il foog mu développe bu nekk développé moromam te bañ a développé te bañ a gêné morom ma mooy tax moom équilibre bu mu mën a jëriñam péncam waaye boo favoriser yaram rek ak bëgg-bëgg àdduna rek bële ñaar yi la nga bàyyi leen doo mën a nekk mu de développement bi ci des mooy li yentu saa sama iman lii duñu yàgg kaa nekk temps yu abadan wamal axiri kaa nekk tamu don abdan ah yentu saa sa moo jàngal na ngeen jëfandiku ci àdduna ba yaakaar na du ngeen dee parce que xéewal yi fi nekk yàlla moo ko jox waaye tamit na ngeen jaamu seen borom ba foog ne fi ngeen taxaw ngeen di dee gis nga ne équilibre boobu kilifa moo ko mën kilifa moo ko man defal nit de boo amul kilifa doo ko mën kon nag ñun ñu sant si Moussa si baax a baax moom ñu fexe ba ñun tabaarakallaa ñu la yan na ko yàlla fay bu ko defee daal yaakaar naa euh, li may mujjee mooy dama ko tuddoon démultiplier dans le monde la leçon offerte par Serigne Moustapha Sy xam nga. Euh, en 1989 ci conférence bi mu ñuy defaloon bi ñuy année de la jeunesse mooy conférence d'ouverture de l'année de la jeunesse à Tivaouane te ñu joxoon ko thème ci quel héritage culturel pour une jeunesse responsable mu ñëw ci biir waxtaan mu ne je vous propose quel patrimoine culturel pour une jeunesse responsable parce que héritage looy doon la boo la neexee nga jël ko bu la neexee nga bàyyi ko waaye patrimoine yaa ko moom waaw xam nga. année bi 1988 la ñu ko waroon def waaye élection yi kat la fa xewoon moo tax ñu dàq ko ba 89 keroog ci biir waxtaanam mu ne maa ngi leen di yéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di laaj ku ma mën a indil benn mustaxsidin bu bokkoon ci violence yi amoon ci élection yi kenn mënu ko indil benn nit bokkoon ci violence yi xam nga loolu nag. bu ko kilifa diine yëpp ci réew mi defoon violence mën a jeex ci Sénégal ah waaw mënuñu ko waaye boo ko mënul yàlla boole laa ko ko man boo ko iñaane jox ko ko du dëgg ci wàllu contribution yu am solo nga xam ne tamit def naa li na waxtaan bi ak aussi ci ay laaj yoo xam ne tamit dina permettre ñu mën a indi ay points yoo xam ne yi prévoir nañ ko mais temps bi may ñu ñu mën ko mën koo indi donc euh, xam naa ku mel ni Aly Gueye comme ni mu ko expliqué dama comprendre toon bu baax a baax ni mu waxee mais en tout li mu indi ci wàllu article 118 du COCC maanaam code des obligations civiles et commerciales mooy li ma waxoon la responsabilité civile des parents te mooy xale bu defee jëya tant que amul 18 ans yi ñu responsable mën nañ ko koo ne ba mu fekkee ne dañ ko war a euh, euh, alamaan waajur yi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy fay li ñu koy alamaan bu fekkee nag dañ koy tëj tëj bi tamit ñaare comme ni ma expliqué woon sànq euh, dafay bénéficier ni ñu tuddee euh, euh, de l' excuse de minorité te mooy mooy waral sanction yi nga xam ne moom lañ ko war a teg duñ ko ko teg ndaxte xale la donc loolu tamit dafa nekk loo xam ne lii moo ci privilège yi nga xam ne moom la xale bi am ba tax malheureusement am na ñoo xam ni porte ouverte lañ ko def pour def yenn yi mais coono bi ci waajur yi sonn moo waral ku nekk war na góorgóorlu bu baax a baax a baax ndex yar sa doom parce que lu ci mën a am tamit si yow lay mujj malheureusement nag parents yi da ngay yëg na sax du ñu xam sax li xew parce que léegi-léegi benn xale dañ koy indi moo def lii moo def lii bu pare président laaj sa doom ji dégg nga sa doom ji dem naa ah, man day man day yëguma ci dara kii dafa dëgër bopp ana bàyyam bàyyi ji dem ma nga fa moom daal bàyyi moom na dafa dëgër bopp moo tax mu nee na mu mur moom dara waaw bàyyi moom tabaraka la jigéen ñi daal ñoo sonn mais euh, bàyyi moom léeg-léeg dañuy gaaw a démissionné trop ci wàllu xale yi même demande de sang éducative yi nga xam ne dañu koy faral def jëm ko ci ay moy pour ñu leen ci wàllu xale yi li ci ëpp way juri jigéen ñi ñoo koy def mais way juri góor yi moom tabaaraka la ñaare ci wax wàllu xale yu jubadi moom seen taxawaay léeg moom ni war a mel melu ko dara bu ko defee soxna Awa Ndiaye defe naa li mu indi tamit ci wàllu euh, violence responsabilité partagée defe naa sànq loolu indi nañ ko ci wàllu euh, état bi responsabilité bi mu am ci wàllu violence bi nga xam ne moo am xam nga bu ñu seetee lan moo waral violence bi li tax léeg-léeg nit ñi di xale yi di fipp mooy am na leen lu ñuy tuddee injustice sociale te mooy gis nañ ne réew mi ñiy am dañuy am rek ñiy ñàkk di gën a ñàkk rek loolu nag am na ñoo xam mag ñoo xam mën nañ ko dégg mais pour xale yi ñoom dañ koy wutal dañ koy wutal solution moo tax ma war sax ne xale moom xale xam nga ci convention relative aux droits des enfants le droit à la participation boobu moom xale yi dañ koy jëfandikoo baax a baax a baax a baax ku leen boole ñu bokk ku leen boolewul tamit ñu bokk problème bu am daal ñoom ñu fajal ko à leur manière loolu moo waral agression yeeg yan yi nga xam ne mooy faral di am ci ni ñu gis ne penc bi li fi nekk dañ koo pàccoo. loolu moo tax may wax ne état bi loolu dama ko defoon sama conclusion bokk na ci li ma suggéré man maanaam li ñuy tuddee la redistribution des ressources loolu tamit def naa bokk na ci une politique sociale parce que politique sociale moom moo amul ci réew mi wala boo nekkul politique sociale boo xam ne bi tamit ñi mu touché bari nañ parce que même boo seetee li bourse familiale bi Macky Sall tëral le président Macky Sall yaakaar naa ne dafa néew na trop néew na trop cent cinquante mille xaw ma ci ay population bu nekk ne douze millions defe naa loolu tamit ñi ko yëg bëriwul donte am na solo nag kenn du ko xeeb waaye euh, des na parce que boo demee ci banlieue bi ak euh, réew mi ni mel léegi ñàkk gi ni mu méttee xale yi ñoom ku li aani bu ñu amee seen soxla il faut ñu faj ko boo leen ko fajee la ñu ko faj boo leen ko faj ñu jéem ko faj moo xam ne façon ba ñu koy fajee te léegi nag li am mooy agressé nit ñi nangu seen alal loolu mooy xew léegi ci Ndakaaru waaw agressé nit ñi nangu seen alal mooy système bi ma wax sànq ay bande yi léegi moo am léegi ci réew mi xale yi dañuy nekk bande léegi di agressé façon bu tabarak la bi ci des mooy jaayum drogue jaayum drogue mi léegi lu lu développé la ci Sénégal te xale yi ñoo koy jaay waaw léegi école yi léegi xale yi yëpp léegi dañuy dañuy dañuy dañuy jël yàmba amul audience buy am tribunal te duñ fa indi xale buy buy jaay yàmba wala buy tux yàmba amul te ñoom ñëpp koy jaay léegi. loolu nag yaakaar naa xeex bi ci état bi da am na solo parce que am nay jamono bi ko fi benn euh, commissaire de police waxee wax na loo xam ne ci kaw lay jóge ba suuf amoon na coow lu mu mais après nit ñi xam ne dëgg ne réew mi euh, wàllu drogue beeg wàllu blanchiment d' argent blanchiment de mal li ci xew temps yi xam nañ ne ko nekk na xam lu développé ci réew mi la te xale yi ñoom la ñu utiliser parce que kenn du leen ko foogee waaw donc loolu mooy li xam ne moo ci nekk donc état bi am na ci part de responsabilité mais parents aussi am nañ seen part de responsabilité. xam nga li ma wax sànq ci commencement li sëriñ bi waxoon ci wal baladu tayyib yuxriju nabato bi izni rabbi wallazi xabusa la yuxriju ila nakida kooku ci pareil la valable ak aussi état bi ku nekk niveau ba nga tolloon yaa war a mën a fexe ba njaboot gi baax état bi am na foo xam ne moo moo mën a defar njaboot gi am na foo xam ne famille yi parents yi ñooy jël seen responsabilité am na foo xam ne xale bi la ñuy conscientiser xam ne moom moo war a jël responsabilité parce que am na foo xam ne fii bu ëllëg parents yi bu ñu fa tolloo ñu ko tàll kon bu bëggee tekki moom mooy xam ne fecc tux mandi loolu kenn defam réew ku bëgg a tekki da nga koy bàyyi donc je pense que responsabilité donc c'est partagé il faut que ku nekk ñu xamal la fa la sa responsabilité nekk nga jéem ko taxaw c'est vrai que yombut parce que système éducatif bi itul lu bëree bëri bëri fa la nekk parce que échec scolaire yi bëri na ci loo xam ne mooy cause bi échec scolaire yi décrochage scolaire dafa teel léegi xam nga état bi të na benn loi boo xam ne bii xale yi dañuy jàng ba 16 ans mais mooy solution bi xale bi am moyenne zéro moyenne un moyenne deux ngay di ko bàyyi rek mu jàll ba 16 ans kon kay nañ ko teel a génn école mu dem jàngi métier que école bi école bi jàng mais système boobu moo yàqu léegi du dégg ñun fee boo demee xale yi nga xam ne dañu leen dàq école dem ñu leen di jéem a dugal ci ay centre de formation genre humaine di leen di leen jéem a récupérer mais quelque fois dafay xaw yéex donc loolu tamit lu jar seetal état bi li mu mooy ñëpp jàng mais aussi ku xamul dara ñu bàyyi ko banc bi rek muy te ña fa nekk xamuñ dara kooku demee teel leen génne ñu jàngale leen defe naa loolu aussi mooy solution de sagesse suñu <coughs> wax bariwul xam naa ne donc euh, yaakaar naa euh, bi ci des mooy Momar Thioune ah Momar Diop ci violence verbale ndax dina jur délinquant def na loolu tamit wax nañ ko sànq mi nga xam moo ci nekk maanaam ñi nga xam ne ni dañuy waral di utiliser violence verbale forme de de de délinquance la boo xam ne bi ñu koy utiliser li ñu jublu mooy sonal nit ki bund xaral nit ki am luñ ko euh, naxarale loolu defe naa ne kooku tamit jot nañ ci jot nañ ci wax théorie Lombroso bi defe naa loolu duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci dellusiwaat maintenant liaison bi muy def ci diggante euh, euh, kii sëy ak jour yi tere terewoon ñuy di ko sëy defe naa yooyu du yemul ca tabaski mais def naa dañu wax ne jour boo xam ne bi dañuy rey deret mu mel ni jour tam xarit wala en tout cas jour yi nga xam ne dañ ci faral di rey euh, tur deret yooyu defe naa la kilifa yi wax ne ku nit buy sëy na moytu bés yu mel noonu parce que mën na jur doomam mu nekk ko xam ne ëllëg dafay dafay violent donc loolu tamit bu la neexee mën nañ def liaison boobu parce que l'ombroso moom moom ci ay étude ay crâne ay crâne moom la def ba gis ne euh, am na ñoo xam ne ñi ay relents criminel moo nekk si ñoom te loolu dafa ne loo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu juddaale la lu ñu juddaale donc mondialisation mbon mbon defe loolu moom dafa nekk xam ne lii mooy li nekk mais yooyu yëpp mi ngi def éducation bi rek parce que télé bi ak internet bi li muy génne yaakaar naa loolu bu fekkee xale bu ñu yar mën na cee bañ a yàqu parce que internet xam nga fan laa ko doon dégloo démb int bëri nañ avantage trop parce que xale bu bëgg a jàng tey soo demee internet loo bëgg xam-xam ko mais internet aussi neen mën na ca yàqu mais ku ñu yarul. waaw naa ne sëriñ bi wax ne plume dañ koy yar. mais instrument bu mu mën a doon ci développement dañ koy yar bu borom ko koy utiliser bu yaruwul rek couleur ko ci loolu je crois que loolu mooy ni xale moo ci nekk dama doon profité pour indi jeu vidéo yi normal kii gëstu bi ñu ci defoon sax moom laa affiché wu ne bëggoon ko lire mais soxna si ne ma temps dafa xaw xat mais jeu vidéo du yëpp a négatif jeu vidéo yi am na yu baax ñoom def nañ ba étude ba def étude ci temps bi ngay temps bi ngay def ci toog di seetaan vidéo ñoom dañoo gis ne it am na xale yoo xam ne gis nañu xale yoo xam ne duñu seetaan un jeu seen intelligence développé wu xale yi seen jeu vidéo ñoom la seen intelligence gën a développé alors que jeu vidéo yi mën nañ ca yàqoo kon pour wax la ne la lu ci nekk rek usage bañ cay def mooy li xam ne moo am solo am nañ njariñ trop mais aussi am na yàqu parce que am na yoo xam ne jeu vidéo yi la ñuy seetaan fa la ñuy jógee def li ñuy def fa la koy jàngee. donc donc tout est je crois que tout est un problème de de de d'éducation donc égocentrisme tamit dafa naa li ma ci euh, li ma ci waxoon bon soxna si moom dafa def parallélisme ndax xale bi nga xam ne ñaaree ci commencement am lay wane ne dafa bëgg affaire alal yaayam wala kenn du ko laal bon c'est vrai que xale bi comme ni ma ko expliqué sànq xam nga malheureusement temps bi permettre peut-être beneen yoon dañ ci mën a ñëwaat mais li ko dalee deux ans ba trois ans. ba baa ngay egg 18 ans at bu ci nekk dafa am ay réaction yoo xam ne yi moo tolloog âge xale bi donc moo tax ñu ni jàng psychologie de l'enfance c'est extrêmement important surtout les différents stades yi nga xam ne ku mel ni Henri Wallon moo la indi wala même les différents l'intelligence bi Piaget indi yooyu dafa jara jàng ku yore doom rek wala ku nekk ci école yi war nga jàng yooyu parce que état bu nekk dafa am réaction yoo xam ne âge bi moo koy bu ci jógee rek mën na changer bu jógee ci âge boobu rek beneen comportement lay amal. événement dina ñoom amal beneen comportement bokkute ba mu amal ba mu donc moo tax loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu jara lu jar duñ ci mën a sukkandiku ne xale bi ni mel nii noonu lay kunne mel non non sa ça dépend rek ci âge bi nga xam ne bi si la si la toll donc euh, bul nampal soo meree defe naa loolu tamit jàngal nañu ko nit ki bu meree mais Serigne Moussa jàngal nañu lépp ah hmm? nañu lépp même booy togg hmm? xam nga dem na ba jàngal nañu ne même Euh, euh, lekk bi ngay mujj jox sa borom kër avant ngay sëy ak moom day am jeexital ci sëy bi day am jeexital ci njaboot gi say juddoo loolu sëriñ bi jàngal nañu ko lu dëgg kon kay sëriñ bi jàngal nañu lépp nañ dellu ci kaset yi lu dëgg man daal loolu laa ci xam mouvement yi ndax mouvement yi sa violence xam nga exemple Honduras dafa nekk exemple bu am solo boo xam ne malheureusement temps bi may ñu ko mais foofu dañ fa tudd ñaari mouvement bu ñu wax M13 ak M18 mais ñoom seen biir dañuy rayante par rivalité euh, mouvement yooyu dañuy exercer benn intimidation ci gouvernement bi bay enlever ay autorités pour mën a fexe ñu bàyyi leen xel seen yeneen mouvement yi ñu gis nañ ñoom ñi dañ leen maanaam seen yeneen gang parce que ay gang la ñu ngi tudd les mara foofu ak M13 ak m ay ay ay gang la yoo xam ni ñoom seen bopp dafa am benn te dara waralu ko lu may li ma wax sànq pauvreté bu metti ak seen famille yu am crise abandonné leen xale yi dem wuti fu ñu nekk parce que xale fu mu jaar wut fu mu nekk ak ñu mu ànd ak fexeel ba muy toog ci famille bi mooy li ma waxoon sànq ci wàllu euh, euh, attachement investissement engagement yooyu na ko xale bi am ci kër gi xale bi na attaché wu ci famille bi di investir ci cause kër gi engagé wu ci cause kër gi su ko mënta am ci kër gi wut benn band boo xam ne loolu fa la koy defee amul benn problème xale moom fu mu jar moo tax kër gi xale bi bàyyil bu ñëwee nga di ko gëdd même boo amee résultat yi bon waaye gëdd saaga xas kersa gu métti du toog ci kër gi am na xale yi bu ñu tegee seen sac bu ñu teg seen saag génn dem seen yoon bu ñu demee te seen mbedd nag mujj gi mbedd mooy mooy ëpp ci ñoom influence yow mi wajuram moo tax loolu c'est extrêmement important il faut ñu bàyyi xel xale yi ni ñu waxanteeg ñoom fa am façon bu ñu waxanteeg xale fa am façon bu ñu defanteeg moom waaye boo na waajur parce que ni ko mbokk yi wax sànq Xalifa Sall doom nawle la mais am ñu xamuñu loolu seen doom dañuy gëdd dañuy saaga dañuy xas dañuy yuuxu ah tabarakallah vraiment du noonu kooku boo yoree sa doom dalay échappé nga ñàkk ko naan ah xale bi dañ ko léeg-léeg nga meer ñëw sama doom bi de man xam naa dañ koo liggéey kii ngay ni mel moom fu dem naa fu sëy ma ne dara benn sëriñ yaa yaa moo tax wax jébal la moo tax tabarakalla lu nekk ngay gis ci réew mi ci ñoo xam ne mënuñu yar seen doom parce que éducation dañ koy jàng li mbokk mi wax sànq su may wax jàng waxuma jàngum français kese sëñ Moussa moo ñu wax ne doom dañ koy yar ñeent fukki at bala muy juddu way juróom ñoo yar seen bopp jàngal seen bopp ba xam ne ñu war a yore seen seen doom donc fa lay dellu su ma waxee éducation waxu eh, njàng parce que am na ku jàng tey ba am agrégation te xamu dara hmm? kon jàng problème mu dem école français du dégg njàngam éducation la am na ko xam jàng na te xamul dara mënut a yore kër bi léegi am na ñoo xam jàng te mënuñu yore kër wuti ay jànq yu leen yore seen doom yeeg wuti ay nuunoo yi kenn xamul parce que mënuñu yore seen doom yi donc loolu problème bi du problème njàng problème éducation la boo xam ne da koy def ci xale bi yeewu googu culture générale bi ma wax sànq ci njaboot ci wayjur bu nekk loolu laay wax jàng waaw euh, bon yooyu daal defe naa ne mooy yi ci amoon yi ci ma yi ma jàppoon ci wàllu inter euh, euh, euh, contre délinquance contagieuse defe naa am na benn soxna bu ko fex mm. délinquance contagieuse mooy li ñu waxoon ci ci les influences xam nga indi naa ko mooy li waxoon ci les influences xale bi bu nekkee ci benn milieu te amul résilience mënut a résister ci ay moromam li ñu koy defloo lu gars yi def mu def te du xam sax te mu def ko. peut-être loolu lañu tuddee délinquance contagieuse hmm? loolu nag ça dépend souvent ci âge bi parce que am na âge boo xam ne bu ci xale bi tolloo facilement lu ñu ko def la mu def ko mais am na âge boo xam ne bu ñu tolloo quand même dina am benn maturité ba nga xam ne bii yenn yi bu ñëwee tamit dina am recul mais surtout nag bu ñu ko préparer xamal ko na ko kat lii bu see moroom dugg ba ci dugg yooyu tamit mooy def ci wàllu éducation bi du dëgg bu ko defee daal. am na benn question bi fi ñëw ba di nag ñëwul su ma ko mënee liiral ma xool. ne day laaj ne ni ci exposé bi da nga wax ne nañ nañ euh, maanaam mbokk sang yi nañ yi faral di takk une femme instruite mu ne pouvez-vous être beaucoup plus clair <laughs> sur ce que vous entendez dans instruite nos mamans n'ont pas été à l'école pourtant elles na nous elles ne sont pas violentes. waaw tontu naa ci xam naa ndax day wut borom day wut borom kër ndax yi jooju soxna soosu <laughs> man kay tontu na mooy li ma tontu léegi rek mooy li ma tontu léegi def naa moom laa tontu woon te liiru ma woon kii bi sax fàttali naa ko kii bi mooy li ma tontu léegi rek ci wàllu éducation bi du njàngum njàngum njàngum njàngum njàngum njàngum tubaab kese kese mais. Mm-hmm. Euh, soit des parent yu dëppoo mooy li xalifa doon wax si dafa naa yooyu tamit nekk ni lu am solo xam nga mag ñi rek ñoo mën a tànn mag ñi leen bàyyi ñu tànnal ñu boo gisee bu njëkk boo masaan bëgg soxna ngay def ba léegi sax gaa yaa ngi koy def ku bëgg soxna da ngay def euh, da ngay def listixaar da ngay def listixaar seet boo xam ne dëppoo ngeen wala déet yow safara nga moom ndox la wala ngelaw la wala ah yooyu dañ koy set c'est important parce que safara ak safara mënuñoo dëkk safara ak safara mënu ñoo dëkk mooy xuloo bu dul jeex rek su ba jeune xëy ñu atte loolu nag stabilité de famille du ci jox donc moo tax je pense que loolu mag ñi fi lañ ko fekkoon def naa ne tamit lu am solo la kon ñun aussi ku ci wut soxna tamit na nga utiliser loolu ku ci wut borom kër aussi na nga utiliser loolu yaakaar naa affaire bi ni ñu koy composé ñëpp xam nañ ko waaw boo jëlee tur yi def ah, araf yi tabarakallaa moo <laughs> boo dee loolu la ñu am lu ñu ci wax ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah kon su ko defee ñu ngi jaajëfal suñu mbokk maam Cheikh Ahmed Tidiane Mbeng yaakaar naa ñëpp bëgg nañ ci waxtaan bi xam naa bala ñoo tëj rek ramasser li ci des ñu jox kàddu gi suñu maam Abdou Aziz si ndax itam ñu bëgg jël lépp jox ko ne jeunesse yi ñooy def ñoo ñooy def dégâts yeeg yooyu yëpp te itam ñu ngi ci parents yi parents yi itam tey tey jii comme ça par exemple benn xale ñëw nga guddi mu bëgg génn moom papa ji ak yaay ji nekk ci biir di wax mu taxaw ci bunt bi di déglu wala papa yeeg yaay ñuy saagante parce que dama seetaan benn jour benn euh, kii sketch muy clando xale bi ànd ak papa ji papa ji di xeer mu ne ko papa pourtant yaa ma teel woon saaga te yaa ngi saaga te itam jeunes yenn jeunes itam dañuy teel a laaj seen droit te balaa nga laaj sa droit war nga def sa devoir ba pare tey jii par exemple maam démb suñu yaay ki ne bërki démb xaw ma bërki démb mi ngi ñuy yedd ne jeune de fora lii te te damay naan itam fekkee nation mooy jëmm mën nañu mën naa wax ni jeunesse itam mooy ruuxu jëmm mooy mooy jooju mooy ruuxu jëmm jooju su ko defee itam ñu gën a dénk jeunes yi parce que ñun ay dañuy naan doomu kilifa lañu tey jii man doomu pap kii laa kii doomu kii la kii doomu kii mais bu ñu jël yëpp itam ne sëriñ si mooy ñooy suñu sëriñ lu ñu wax baax na lu ñu wax mais itam nañu fexe ba suñu mbokk comme ça tey jii sëñ Moustapha xale yi Moustarchidine yëpp tey jii ku nekk tey su mën na jug wax mën na jug wax mën na jug intervenir te pourtant yéen ñi ñi ñaa ngi yàqu ci mbedd ñii ay agresseur dañu ñii ay defkatu lu bon dañu lu tax jël ñooñ itam yokk leen ñu ñëw bokk ci taalibe sëñ Moustapha si yi ñu ci mel ni Almadi tey ji sooy romb dañuy mooy yu bëri ay surtout internet bi léegi whatsapp ak imo ak messenger viber yooyu yëpp ñu jot utiliser ba pare léegi mën nga bind message mën nga def appel mën nga wax par enregistrement envoyé ko ko loolu itam bu fekkee mën nañu wax ñuy ñuy ñuy ñuy kii ñu fabriqué loolu bu fekkee mën nañu wàññi ba vacances yu jot tey jii soo connecté soo connecté woo ba guddi ba quatre du matin di nga di nga dégg di nga gis say amis yu connecté itam bu fekkee loolu itam parents yi mu mënuñu fee ñu bàyyi ba ñëpp tëdd ñoo xool ba xam ne seen doom mi ngi nelaw wala nelaw <laughs> ñu ngi koy jaajëfal bu baax mel na intervention bi am na solo xam naa suñ ko toppee duñ fi jóge te dañuy wax naan lu duuf ci nag bi xëjul ci cin bi xam naa ñu jaajëfal encore une fois suñu mbokk maam Cheikh Mbeng exposé bi am na solo te buñ ko doon tënk rek daanaka presque ci ñetti point lañ koy tënk ñëw nga ci violence définir lan mooy violence ak les formes de violence forme de violence yi nag dañoo bëri te wute bëri na ay ay forme ak ah, ñëw nga ci mbokk yi ñëw nañ ci de euh, bëggoon naa dégg tamit ci wàllu violence symbolique wala ci mel ni wàllu violence vestimentaire dégguma ko fi te mu dellu si colin yi te colin yooyu des fois ça agresse et tout ce qui agresse à la violence loolu ñu bàyyi ci xel te violence boobu noonu bu ñu xoolee li ko waral ak lan moo koy solutionné li ñu wax naan nañ dellu ci source ba muy éducation mooy éducation bi nga tudd te éducation boobu fi mu njëkkee mooy dans la vie de couple tudd nga ko mooy la conjugalité conjugalité boobu mooy lan mooy rapport qualité du rapport wala de la relation que entretient le couple ci qualité ci rapport ci conjugalité boobu mën décliner le type d'enfant qu'ils von élever te ci ci cadre boobu tamit ñu bàyyi xel ne environnement bi tamit bokk na li muy jouer comme ni nga ko indee ci biir waxtaan bi parce que dañ naan tout comportement qu'il soit adapté ou inadapté a été appris au moins de renforçateur fourni par l'environnement ma nekk l'environnement immédiat wala l'environnement lointain immédiat bi mooy la famille mu delloowaat ci couple bi mais su ko defee comme ñun ñu nekk ci daara ji am na bagage yu bari xamante ni jàngal nañ ko mu dellu ci ni ñu yaree suñu njaboot bokk na ci li ñu doon jàng benn xadis daara ngoon lu mel ne li ñuy wax xale yi amtil aza ani tarixi fa lakk sa sadaqatun xam nga ki ñuy wax naan booy dox ba romb ci mbedd mi benn xeer wala loo xamante ne day lor doomu aadama nga dégager ko te xamoo sax kan lay dal loolu mu yaa ngi wattuloo sa njaboot fitna loolu yaa ngi koy jàngal mu egg mu nekk euh, ku non violent kon suñ ko su ko defee ñu bañ a guddal bu baax a baax ñu ngi lay jaa jaajëfal